pour bëre moom fépp fu mu bëgg rek pare nañ pour bëre fa moom. dégg li nga xam si du samay wax na waxi Boy Jules la léegi ñu ñëw ci beneen combat diggante euh, Eumeu Sène ak la de Guiers coow teel bëri combat bi ñoom ñaar acte trois njëkk nañoo ñu bëri waat Eumeu Sène daan ko su jëmaa si troisième troisième acte bi noo jàngatee combat bi ak coow li ci coow li ci teel a am nii comme ça. waaw léegi machinil bi premier combat machinil bi mu demee machinil bi dañ koo door ba mu goor koo xam ne nii yow doo songu xam naa ne moom moom moom wax dëgg yàlla bu doon jigéen la moom ko am ndaw lay doon lu leer laa lay tegal bàjjanam du rus de yaayam du rus doo soogu mbër doo attaqué mbër mbër lay jël si daan la non man man di bëri say moroomu rax di arrière na bàyyi wax ji na bàyyi wax ji ama seen du moroomam te buum dañ koy delloo ca mboy mboy ga bilaay walaay buum tey dellu ca mboy mboy ga. dafa pare de. waaw baax ba booba Eumeu Sène parewul. da jatoo da <laughs> <laughs> baax na dañ pare rek ñun moom wax dëgg yàlla boole ñu dara gi wax dañuy entraîné préparé bu jour baa ba dañuy xam Eumeu Sène la lay indi. Mhm. ñoom ñaar coow li teel a bëri coow li coow li mais Cheikh xam nga am na loo xam ne bu jarul ñu fi nekk di guddal di ko gàttal la de bu fi nekkee di wax am na loo xam ne ni bégal ay supporteram rek la dalal xelu supporteram rek a tax muy wax mais koo xam ne dalaa duma ba nga flexionné nga ñëw mu ne coppet sa tànk dëj la nga ne dégg toog mel ni nagu seeraas yaa ngi dégg bu baax tey nga ñëwaat bëgg a nekkaat fii naan da ngay taxu mbër mi yooyu jarul muy débat moom jarul muy guddal xam nga la may problème na préparé ma seen préparé ba jour ba ñu jàppaat ko dumawaat ko dumay metti daan ko. combat bi nga xam ne la ko am seen daan nag yi bëri nañ bi leerul quoi. Ah. <laughs> jële bu leerul bu jële bi loolu mooy leer ci at lamb yi daa dàq de. jour boobu barki maam jaara lamp yi daa tàq. da ngay xaar. fes bee teg rek. bon. non Balla Gaye Bombardier la rek fes bee teg rek. lamp yi ku daan kalaat bi yëkkati loxoom. d'accord <laughs> fes bee teg rek. waaw fes bi tegew lan nga yow nga ne joodu taxaw ba sa fes di tegew yow kooku gàcce la. dañoo xam ne dëgg da nga ne doo toog ñu toog loola. ah loolu gàcce la nag maa ngi fi wax waxi fees bu fi wax waxi fees wala dëgg du mbër yàlla tudd wërsëgam ci làmb rek mais du mbër mbër te Lac de Guiers boo xoolee tey ci arène bi moo si gën a néew defet ci arène bi mbër daanagu ko wër bit gàng waaw waa léegi yow tey jii nga war a bëreek mbër mi bu arbi ne piip nga arrière daw bàyyi fa bi nooy bëree nooy nooy bëree bi defet loolu day wax dëgg yàlla man su ma meloon c'est que nag man xam naa sama fit moo ma yóbbee ko quoi mais tapet moo tax muy taxaw waaw tapet a tax muy taxaw du ñu ay mbër du ñu ay mbër yoo xamal may wax mbër mbër da mën a bëri mbër da ngay attaqué sa adversaire xeex ak moom bëreeg moom. non la ñëpp xam ne dafa am mënin. mëninam képp ku ci fekk mu daan la. force amul neexal. fekk nañ ko ci mëninam daan ko lan mooy mëninam attaqué wuñ ko jël ko daan ko dañ ah, mais wax ji ngir yàlla ak unité bi pikin tey dakaar bu doon Sénégal tey jii Pikine mooy capital bi. ci ban làmb walla ci lan. ci lépp Pikine fii la lépp buujoo. làmb la ñuy wax te bu dee làmb la ñu moom fi mu toll nii Pikine euh, année bee passé làmb ji Pikine moo nekk kaab mais fi mu ne nii capital làmb parcelle la unité 10. unité 10. non loolu booy yor affaire bi nangu leen rek waa Pikine. unité 10 yow ñun ñun ñu. stade baa ngi nii de arène nationale bi arène nationale baa ngi nii de man maa ko tuddee Fodé du Suba arène nationale Fodé du Suba bi <laughs> gars yi nan ñëw dañ daan génn di leen fekk ji nan ñëw. billaay nañ ñëw affaire amul ragal. la Lac de Guiers Eumeu Sène est-ce que seenu nga combat bi bi gaaw. non dañ koy daanal facilement ñun amuñu kii boobu noonu dañ koy daan facilement du yàgg sax mhm. mais li ma koy ñaan rek leen la ko quoi na bàyyi yàq der loolu baaxul góor yàlla du ko def. Mhm. yàq der mooy. maanaam di waxal loo xam ne nii sa moroom góor amul ndax ndax ku la bëgg ku la jàppale. comprendre que di jaxase waa Pikine naan ay Eumeu Sène yéenewul booyu ñaaw ak yéenewul Ama Baldé comprendre nga bu baax ñooñu ak Eumeu Sène ay mag ak lañ kon na bàyyi yooyu muy def buy jaxasa na lijjanti waa géej waaye bi ko fi Ama Baldé te koo daa ruux naan sama mbokk nga ak sama nii te ba amaa bala di bari guy gi fi la nekk di ko ñaan di ñaanal guy gi ñun gëmuñu loolu na nañu réglé mbëru géej waaye duñ dara mbëru parcelle duñ tus wax jee fi bari ah. si euh, bu ñu waxee nga ni te te ñoom làmb ji waa géej waaye la ak waa parcelle la fi mu nag. déggoo li ma wax déggoo li ma wax. la la affaire bi xeeñoon na fi rek. déggoo li ma la wax yow Pikine mosuñu ko génne. da ngay yëndu fi. làmbu xalal Pikine Guédiawaye ngay dégg mu am ampleur Pikine Parcelles ngay dégg mu am ampleur Pikine Fass ngay dégg mu am amul yeneen dëkk amul yeneen gox yooyu boole muy am ampleur comprendre nga bu baax sama sees nag buntu Guédiawaye laa ko teg buntu Parcelles yeneen dëkk yi sax dinaa leen may yeneen gox yi dinaa leen may ñu dugg si dugg may ku ci dugg ma xiir la. ku ci dugg moom xiir gi dara dal nga génnaat na. boolewoo ci tax bu boolewoo ci waa nga gën tàrk ndaay. non parce que ñooñu ñooñu ñooñu du ma boole du ma leen ci boole parce que amul mbër. ay saa yoo nekk fa ay naan nga amul mbër. yoo ñoo fa nekk. bëri demee ay moo fa nekk boo demee jàmm gën si kàmbaaw noonu. tuddal ma ay mbër waay. waaye ci wàllu bëri. non non ay cokoto rek nga fi tudd ay cokoto dong nga tudd. foofu amul mbër Siteu maa ko doon dégg muy taxu Ama Baldé loolu axamaa naqari ndax da cee tudd sama papa Siteu man moom am nañ fu ñu jaar te xamante nañ. di nuyu di dugg ci tarkindaa yi booy Gilles wuy dugg ci tarkindaa yi bul dugg ci tarkindaa yi. déggoo li maa ngi nuyuwaale Amba bu baax ñu xam ko ci ay tachila Siteu xam na li may wax bu baax comprendre nga bu baax mbëri nañu réglé. man ak ñoom xamante nañ ay Sitaak ay Malick Ñaaw ak ñoom ñëpp xam nañ kuy Boy Jules nañ bàyyi wax ci ñooñu duñu ay mbër ay mannequin lañ ñun nag dañoo am lu ñu gëm am lu ñu jomm ci làmb duñ toog fenn di tëkku mbër mais mbër mu ñëw ñu escanté la nga delluwaat. xam nga bokk na ci bokk na ci euh, euh, ñi nga xam ne ni tey euh, àdduna yëpp. maanaam fi mu agsi lamb dafa parce que bi mu ñëw ñëpp dañu woon du mbër nga tey fi mu ay champion ay ndaanaan dafa bëreel daan leen si si loo xam si ni baara tontu la Siteu Ama Baldé lamb la jaadu na. yow lamb la garab ci koo lay fekkante Ama tey euh, tey Siteu bu yaa daan ma daan sos alors. waaw Ama yaa daan sos ma daan sos. Siteu kan moo yow Siteu kan moo ko daan. no recul Mame Balla ñu koy bëggee waale bu baax mu ngi keroog la jóge Angleterre comprendre que Mame Balla ko jàpp escanté ko escanté yi métti daan ko. yàgg na fi xalaatul xalaatul lekk avance Siteu. dégg li ma la li mu am maanaam fi mu yegsi ci làmb dañ ko koy nangul parce que mayu yàlla la comprendre nga fi may waxee. waaw non déggoo du cadre ndaanaan non non du cadre ndaanaan. daa bi bu jógee jàmm ak njëkk si kàmbaaw njëkk bu ñëwee duy stade def ko gis a ferme. ferme ban mbër moo fi mës a bëre gétt bay nekk junni. bu dul Ama Baldé Arena Tour moom dong la barki Serigne Bamba moom dong moo dem gétt bay def ko junni Ama Baldé feesal ko si te 1500 2000 du ko weesu am na ay combat yoo xam ne sunu waa kii dañ ciy bëri damay dem esat billaay walaay gétt bay 2000 lay am wala 1500. bo Siteu moom fi ne nii sa patron lay wax Ama Baldé lay wax mais sa xale yi nekk foofu ci suuf ay. Eh, man maa taxaw ci kanamu Ama Baldé. balaa kenn yegg si ci Ama bale da ngay taxaw jàkkaarloog man jàmmaarloog man te Ama Baldé du Ama du moroom booy Cheikh nag dadul wax dadul wax mais dadul dafa jeex ñun ñoo sonn ci ku jug ne Ama bale ñun ñoo sonn ci loolu. dëkk Ama Baldé loolu jaaru na bàyyi sa li nga def booy sil bul jéem a bul noonu. mais Siteu moom ba mu juddoo dàmpuñu ko dàmpuñu bu baax une nga teg loxo surux une deux nga surux yooyu tamit dañ ko xoolaat dañ ko xoolaat bu baax. Euh, comme yaa taxaw si ginnaaw Ama Baldé mais Siteu am na ay xale yu taxaw si ginnaaw. si ginnaaw Ama Baldé si kanam Ama Baldé laa taxaw. léegi am na Siteu am na ay xale yoo xam ñoo nekk si ginnaawam képp ku jëm si Siteu bala ngay àgg da nga jaar si ñoom. képp ah ci ginnaaw lañ taxaw mais man. bu ma Siteu lañ taxaw képp ku jëm si Siteu bala ngay àgg Siteu si ñoom ngay jaar ba pare. Eh, yéegoo li ma la gis nga Siteu ñi taxaw ci kanamam ak ñi taxaw ci ginnaawam ñi ko wër ñun bu ñu bëggee jot Siteu dañ koy jot mais dañ dul moroomam comprendre nga bu baax nit ñi nag xam nañ ñun roi des arènes lañ amal affaire muy Modou Lo. voilà sa diggante ak ñi booy yi nga xam si ni ñoo taxaw si kanamu Siteu kenn du daal kenn du ñi muut laal Siteu te jaaroo foofu te foofu moom doo boo fa duggee doo fa génn. ah mais booy jàmm gën yi am na ñu fi ñëw fii abonné ci salle de musculation bi te entraîné wuñ fi comprendre nga bu baax ay abu njaase ñëw nañ ba fii abonné ma leen hey fii muus du fi naanee ñeex fii c'est pour moi marché Zeng la maay borom dellu leen. Abou Ndiassé da nga ñeme lekk avance am daa dof bay jël Boy Sine. yow da nga dof bay jël avance Abou Ndiassé. Abou Ndiassé sama papa trabaxa la doon bëreel nangu koo jëli nañ waxante dëgg nag trabaxa la doon ah mais ñun li espagnol bi di wax. ndaanaan la. déglu ma li espagnol bi di wax trabaxa ñun dañuy liggéey ñun dañuy travailler chaque jour ñun caaxaanuñu kuy capable nag ñoo la gën a capable ku bëgg jàmm ñëw fekk ñu ci jàmm. ku bëgg leneen nga ñëw. pare naa looloo ma gën a neex. laa la wax de déggoo li ma la. ndaa bi looloo ma gën a neex moo taxaw ci kanam Siteu na ñëw bu ñëwee dama koy koŋ. bu laal. non kooku du mbër. Hmm, kooku ma ne kenn du mbër. di laay du mbër. lan nga laal tey tey tey da ngaa naqari deret nu mu demee noonu. non il faut ma naqari deret xamul tax dañoo laal sama patron. muy Ama Balde. dañ daal gars dañ daan wax lu nekk ñun ñu toog duñu mën a wax mais booy ñoo fipp ñoo màgg amul kenn ku yoo Ama Baldé dara ñu lay bàyyi muy sedd barki amatul ay bulaa rek booy yëpp duñu ay mbër comprendre nga. kon du sax ñoom bu laal sax dama leen a yab sax ma leen di jégalu mais yow fi ne nii sa digganteeg sa digganteeg euh, kii rek euh, nu mu tuddati tarkindaa bu xees bi rek fi ne nii sa waay euh, da ngay xaar de. tarkindaa bu mooy caat. Saar Fora tark ndaa bu xees bi. non <laughs> yow yow nag yow nag yow instant bi xam naa ne instant bi ay kii nga bëgg Saar Fora Saar Fora lan lan la mën ci Boy Sine Boy Sine mu taxaw si meeku longoo jaaji tuuroo soomi xool ñeen di xibla yi ñu may yàlla nga dee yàlla nga dee yàlla nga dee maanaam leen musal ma ci musal ma ci barki maam jaar dama leen di dóor bañ tëdd billaahi wallaahi mbër du xees du xees xees noonu la mel macha allah bu bëree mu neex ba xeexee mu neex. bañ ne mbër du xees daa dem liggéey bu ñuul te noir la yor mbër du xees li may xam nga ko parce que maam jaara bon. caar fora nga ñëw xam nga su ma fi nekkee naan du ma bëreeg moom sax dañuy am day am xaw am lu mu wax dinaa mel ni maay papam dinaa ko duma dumay metti du ñeexam ñebe de. waaw la maa ngi may dégg bu baax mbuub la. kooku ñeexu kaani la kaani kaani saram bu saf bi. kooku boo guuxee benn guux foo jaar foo nelaw. ñu dañoo ragal loolu. ñu ci ay kaani la ñuy fanaanti purement <laughs> gars yi dañuy wër di wax rek. mais xam nañ booy Pikine bu baax mu ci waxtu jeex na ba nu xaabaabul waaye ki ñu invité moo ñu ah, muy euh, Boy Jules euh, nekk champion bokk ci làmb ah, nekk si ki nga xam ne moom di Ama Balde waaye nee na dégg léegi mi si kanam Ama Balde parce que xam naa gars yi jëm si Ama Balde dafa bëri fi mu nii coow la ñoom fan yi làmb yi tàkk lañ jël waa Pikine euh, mais la nga tàggoo mbokk internet yi waaw waaw dañuy sant yàlla bu baax di santaat yàlla bu di sant suma yaay di santaat suma yaay di santaat suma yaay bu baax baax di sant waa waaw marchandise di la bëggee bu baax di wax ne leen gars yi nag SBT SBT Média mooy affaire yi da ngeen parce que jaar dañoo war a ñëw. ndaw xul mbëru mag li ma xam rek mooy ko takk ngeen. c'est que bi man maanaam tey jii yéen boo leen doon ay promoteur sëñ Modou Niang laa leen tuddee parce que tamit xam nga affaire yi moom ñun làmb lañu am parce que may gis yenn yenn yenn télé yi sax duñ nangoo jël si sax mbër yu ndaw yi mais mbër yëpp ay mbër lañ te mbër mu ndaw mooy doon mbër mu mag comprendre nga waaw mais di santaat yàlla bu baax a baax nag ah waaw di sant ngéwal ngéwal moom moom mention spéciale maa ngi leen di sant bu baax ñoom Cheikh Mbaye ñoom Ndiaye papa xama ñoom day xuja ak Alim ak mère Ndiaye moom sama yaay la sama xarit la sama lépp la ma koy ñaanal gudd fan ak wér ci doore Cheikh Rafal ñoom Fatou Mbaye ak ñoom Tabara bébé aji ñëpp Ameth Ndiaye Père Bamba ak ñoom Demba ñoom ñëpp maa ngi leen di béggee bu baax a baax a baax Baye Zane maa ngi koy sant di sant yaayam bu baax di sant soxnaam day Jaari di sant sox li ñaanal jàmm Ama Baldé bu baax yàlla may ko wér ba jour ba ci dooley Cheikh Fall di sant suma sëriñ sëñ Cheikh Fall Mbawar di sant waa Touba yëpp suñ mo euh, waa kër suñ Modou Boussa Dieng di sant suñu Abdou Karim di yàlla si la suñu Modou Boussa Dieng ak Baye Galas Mbacke ak tout tànk yi nekk ci gàll bi yëpp sëñ yëpp maa ngi leen di sant bu baax a baax a baax di ñaanal nag sama benn kilifa boo xam ni Pape Diawara lañ koy wax di ko ñaanal yàlla tanel ko defal ko jàmm mu am wér comprendre nga anniversaire am nag léegi mu ñëw ñu koy ñaanal di ko gudd yàlla guddal fanam ñu koy wax happy birthday xam nga séeri euh, Boy Thiam Maram Diawara di bëggee waale Mati sama caat mii sama doom ji maa ngi leen di bëggee bu baax a baax di santaat waa Pikine yëpp di santaat waa Pikine bu baax a di la bëggee di la bëggee di sant suma staff ñoom jiidi waaw sant jiidi maa ngi leen di bëggee bu baax comprendre nga di sant ñëpp comprendre nga sëñ sëñ euh, sëñ Mor maa ngi koy bëggee bu baax comprendre ko bu baax maa ngi bëggee ñëpp di sant ñëpp bàyyiwuma kenn Pikine laa am moom laay tiitaroo comprendre nga xam nga di di di di sant ñëpp bàyyi ji di sàll bàyyi ji di sàll maa ngi koy sant bu baax yaba maa ngi koy bëggee bu wér a wér a di sant waa Casamance comprendre ko bu baax di sant waa Casamance waa Kolda waa Guinée Bissau maa ngi sant waa waa Touba encore il faut ma sant leen bu baax a baax parce que ñoom dañuy sonn ci ñun comprendre nga bu baax di sant suma gaa yëpp ñoom maxu comprendre nga sama jigéen bi doon sëyi démb ku ma saaxu maa ngi koy ñaanal jàmm mère Maguette maa yàlla na yàlla fëgg boppam di ñaanal suma yaay di ñaanal suma yaay di ñaanal di ñaanal suma papa fi mu tëdd yàlla na ko gënal fi mu jugee waaw di ñaanal ñëpp ci doole Cheikh Rafal xam nga di ñaanal supporter yëpp. comprendre nga bu baax di ñaanal supporter yëpp yàlla defal leen jàmm ne leen seen doom moom moo ngi waajal bu baax a baax a baax na ñëpp ñëw jàppale seen doom comprendre nga comme que Ama Baldé xiir gi la génnee ci combat mu Papa Sow mbolde bay génn rang muy gaaw. mbolde ngeen rang muy gaaw ngay dégg. xam nga ne kon Modou Lo Modou Lo xiir mënu ci moom dara. no c'est que xam nga tey jii nit ku ne ak li ñu ko yéenee. yéenewu ma ko ay xiir muy tërgal parce que yàgg na ci xiir xam na la ci kii ma yàgg na ko ñam mboole gi day daal rang muy gaaw. SBT Média la seen émission seeti mbër euh, beneen champion ci SBT Média te ñu seet woon ki nga xam si ni moom moo di Boy Jules euh, doomu Pikine Boy Jules bi nga xam si ni macha allah laamu miin nañ ko baax xam ko dafa am loo ci yokk. waaw waaw sama benn grand boo xam ne suma waa Alkeda waa marché euh, fële Pétincelle maa ngi leen di bëggee ñoom ñëpp suma maa ngi koy ñaan bu baax comprendre que di sant sama rax sama mag jibi Thiam ak jabaram mami maam jaara maa ngi bëggee ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di la ñaanal jàmm yàlla na la Serigne Touba wala taxaw la ci doole Cheikh Fall ndax borom baax SBT muy guddi muy bëccëg ah incha allah ñu fa di jaajëfal na ñi SBT ku si mel ni monsieur le maire maa ngi koy jaajëfal baax a baax Mawlaay Abdou Assane Ndiaye maa ngi koy bégee bu baax baax Thierno Seydou ñooñu ñoo nekk si ginnaaw SBT ku si mel ñoom Nice Diop bëri na xam si ni tey am na ñoo xam ne sax bëgguñu tudd seen tur mais ñu ni guddal di ñu bëccëgal lépp luñ dugg ñu nekk sa fun fun taxaw ñu buñ gestoo gis leen di jaajëfal ñëpp mm-hmm. waaw bëggee waaleel ma sama jigéen ci rek Fatima borom Espagne doomu nday booy caam nag ma koy bëggee waaleel bu baax di nuyu waa Espagne yëpp ñoom Fallou Fall ak ñëpp diaspora bi ñoom Ibou Nagoro gaa yëpp maa ngi leen di bëggee ay ñoom Ziza surtout waa nag waa marché ak ngéwal gi mu nekk nii bëggee naa ñëpp one love